baax a kon rek dañuy ànd ak euh, waa régie ci générique daal di dellusiwaat léegi pour suñu kàddu euh, su ci suñu euh, kàddu daara yi merci beaucoup Alioune Ndiaye ak waa régie ñoom El Hadji Modou Diouf ñoom Cheikh Tidiane Diop Cheikh Tidiane Ndiaye maam Sidi Diop ñu ngi kontaan ci yéen bu bare bare fi nekk nii nag amatuma lay jox nañ ma pour ma jënd kol xam naa ni vendredi prochain moom euh, yaakaar naa ni cel gi dana mat sëkk barke juste bu ñu paree jaajëfal ko waat bu baax a baax Oustaz Adi ñu ngi lay sargal di la ñaanal yow nga yàgg fi loo rek te ànd ak wér kon dañuy ñëw rek ci kàddu yi comme ni ñu koy defee rek chaque vendredi dañ ciy ànd ak euh, Fatoumata Sey Fatoumata Sey maa ngi lay fay ah, soxna Lalla. la ziar si àjjuma ji. jërëjëf maa delloo ziar si àjjuma ji te naan la bon bon bonne fête de travail. de travail <laughs> bonne fête à toi aussi bonne fête aussi ak euh, ñi nga xam te ne ñoom ñooy sénégalais yi ñuy seetaan jamono ji àjjuma ñëwaat na. Mhm. yëg sa waat nañ ci li nga xam te ne moom mooy jotaayu daal yi. Mhm. comme euh, ni ñu koy defee saa su nekk dañuy am benn invité daal di ko fi indi mu indi ay xale aussi ñu mën a jàng alxuraan Euh, jàng ko ci anam bu euh, jaar yoon soxna laa la tey ji ñu dalal nga xamante ni moom mooy euh, Sawdatu Diop mhm. ci daarul mumini muminaat yi mhm. n'est-ce pas soxna Sawdatu maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau alhamdulilah maa ngi lay fay baada aouzu billahi bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim may kontaan si dalal gi ngeen ma dalal laal la yow soxna Fatima waaye di nuyu waa kër gi yëpp di si jiital sama xarit sama borom kër Oustaz siit Lamine mhm. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal toujours wér gi yaram ak euh, yokk xam-xamam ba fi bëgg a jëmee kër gi mu yegg fa Euh, soxna Fatima. waa laal la xanaa balaa ñuy euh, sori tuuti rek euh, moom daf fi indi ñeenti xale yoo xam te ni fas nañu ñëw daal ñu jàngal ay aayaat ak fàttali ñu tuuti suñu borom. Mhm. ki ñuy njëkk dalal rek mooy Mar Ndeye Mariam Sy. Mhm. Ndeye Mariam si am na 8 ans Ndeye Mariam Sy. Mhm. moom ci euh, daara mu'minatu mu'minati mu'minati voilà fa la nekk maanaam maanaam moom moom yi kaay fii euh, ñëwal nii day Mariam benn bi mooy mu'minatu bu dee ñu bari la kaay fii ñëwal nii mu'minati <laughs> d'accord benn mooy mu'minatu mu'minatu mhm. yu bëri mooy mu'minaati mhm. mooy mooy ñu gëm ñu jigéen ñi mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah allah ismi nay mareem si ata'allamu fi daaril mu'minaati bi xayi si te fajar uridu an aqra ma ta zikril hakim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يؤمنون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم wa kaana allahu gafuuran rahiima sadaqallaahu al-aziim macha allah sadaqallaahu al-aziim soxna Lalla mhm. xale bi doon jàng léegi mu ngi am huit ans mhm. moom mi soxna Sawdatu kii di euh, euh, Ndeye Mariam Sy huit ans la am waaw huit ans la am macha allah. Euh, bi mu ñëwee ci daara ji yàggul. matagul deux ans te léegi tey mu wàcc ci kàttanu yàlla. macha allah muy xale bu am yar boo xamante ni góor góorgóorlu la. ñu koy ñaanal yàlla subhaana wa li ko dese yàlla na yomb. te lim jot am yàlla na ko yàlla saxal si dëndam. amiin macha allah amiin kii di aw saar boobu it mi ngi foofu. mi ngi foofu ci fi nga xam te ne moom mooy euh, Daaru Muminati Daaru Muminati waaw. nekk ci Cité Fadia. ci Cité moom ban la nekk nii. moom macha allah far tey sax la wàcc nag. macha allah maanaam tey jii lañu ko sa bindam bu mujj. Mm-hmm. Euh, ñu war ko sargal. Mm-hmm. waaye macha allah mu ñëw fii ba ci wal fajiri. Mm-hmm. ñi di ko fi sargale adduna bi yëpp di ko seetaan. kon ñu ngi koy ndokkeel. di ndokkeel ay waajuram <laughs> waaw macha allah tey di ko ñaanal di ñaan képp ku ko seetaan naka ñaanal yàlla naka yàlla yombalal. mokkal gi incha allah Amine moom mi ngi am 12 ans. waaw moom mi ngi am 12 ans fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar. macha allah ñu bàyyi la kon euh, Awa Sarr. man ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ismi Hawa Sarr. taallamu fi daaril mu'mina fi ay site faja bifadlin min allahi wa tawfiqihi hatamtu lyawma almusab alsharifa lidalika uridu an aqra duaa alxatmi alquran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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالقرآن الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم daf ñu bëgg a barkeel tuuti si ñaanu tëju alquran bi comme tey ci tuuti rek awa mu bañ a bari bismillah qul huwa allahu ahad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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم azim macha allah macha allah yaakaar naa ne am na solo léegi dañuy woo ki nga xam te ne rek moom mooy Ndeye Ndoye Dieng. Ndeye Ngoy Ndeye Ngoy mi ngi foofu ca école ba moom ban niveau la nekk ni moom ci ñu mokkal 2012 la bokk. Mhm. ba dem def étude primaire am deux ans. sële ci Manaarul Huda mhm. léegi daal di am euh, entrée en ak mention excellente léegi mu ngi si lycée franco arabe bu point E. macha allah Cheikh Mouhamed Fadilou Mbacké. Mhm. présenté aywa je m'appelle Neywa Dieng. j'ai mémorisé le noble Coran à Darul Mouminat en 2012. J'ai fait deux, ensuite j'ai deux ans d'études primaires à l'école Manaroul Houda. J'ai eu mon entrée en sixième avec mention Maintenant, Alhamdulillah, je suis mes études secondaires au lycée franco-arabe Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké. أريد أن أقرأ شيئا ما تيسر من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ثبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون حسبك sadaqallahul azim macha allah encore une fois félicitations Ndeye uh, Ngoye Dia moom nga nekk fukki at ñaar ñaar waaw ma foofu yitte ca uh, école ba waaw léegi juste buñu paree que uh, moom Ndeye ku ñuy àndalati dañuy àndal ak kii di Mariam Silla mm-hmm, Mariam Silla moom sama sama sama xarit la sa njëkkee la sama xarit <laughs> waaw Mariam Exil jàmm macha allah xaritu ñu bari la balaa muy jàng sax moom dina am lu ma ci sànni soxna Fatima mhm. parce que ñi mel ni moom si léegi dafa bareetul mhm. surtout xale yi nga xam ne ñoo juddoo Paris yaroo fa mhm. ok moom Paris la juddoo masul ñëw Sénégal ah. ba âge de dix-huit ans mu xëy xëy ne dafay dem Sénégal dafa bëgg a mokkal alxuraan mu jaaxal ñëpp nag parents yeeg ñëpp sax ba dañ ko mujj sax appal ne ko deux ans bu ko fa passé mu ne leen incha allahu. Mm-hmm. fi mu nekk nii deuxième année bi tuuti moo ko ci dese waaye téere yàlla bi tam tuuti moo ko ci dese. Mm-hmm. kon volonté rek mm-hmm. mu am solo. détermination. macha allah muy ko am yar nag. dëgg yàlla ñëw. xam nga dundinu daara tak ak dundinu sa kër waajur ca mhm. ca France yow kese mhm. mais dafa ñëw rek bokk mhm. macha allah euh, dama koy dañ koy ñaanal na ko ñëpp bokk ñaanal li mu ut si woon yàlla gën ko ko yombalal ndaxte yàlla moo ne wala qad yassarna al li dhikri fahal min mudakkir macha allah mariam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ismi mariam silla أتعلم القرآن الكريم في دار المؤمنة في بحي سيتي فجا أريد أن أقرأ شيئا مما تيسر لي من الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون sadaqallahul azim macha allah macha allah vraiment te sax xale yi loolu la ñuy wax waaw shukran hmm. shukran te xale yi sax li nga xam te moom mooy euh, li ñuy li ñuy wax li ñuy wax fii sooba léegi euh, gis nga ne ay fàttali la mhm. nit ñi ñu ngi leen di fàttali ay ayat yoo xamante ni mhm, euh, mhm. vraiment yàlla mu ngi si wax lu bari ci jigéen ak ak yeneen macha allah kon fu mu toll nii xale yi moom man ñooñu ko ëppale fu mu toll nii laal la yaa si daa fi nekk nii rek li ma question bi ma moo di yéen parfois yéen jafe-jafe ngeen di am. Uh-huh. ak euh, xale yan parfois parce que yore tamit yombul. dëgg la yombul. ndaxte xale yi xam nga fi ñuy jógee dafa wute uh-huh. ku nekk ak façon bi nga commencé woon ñu la ko yaree. Uh-huh. ñoom ñëpp ñu ñëw daje na nga bëgg def si ñoom benn yar bi. loolu jafe-jafe lay doon ndax ku nekk am na lu mu taan ta tàmmoon. ko defee nga bëgg ko raxas ba mu set ba pare nag door ci def leneen loolu ku ne xam na ne yombul su paasee njàng mi. parce que ñaar la ñu boole. Mhm. njàng mi à la. Mhm. yar bi aussi à part la. Mhm. ndaxte yar bi warul des ginnaaw. njàng mi ndax soo mokkalee alquran tamit amoo jikko yu baax jikkoy yu jullit su boobaa daanaka euh, du am solo lool moo tax boole ñaar yi dafa xaw a jafe te xale yi dañu naqari jubbanti surtout que nag bu fekkee ni euh, dangay jéem a nax di bañ a jëfandikoo euh, métit di jéem a naxante foofu métti euh, euh, jafe-jafe dëgg dëgg dëgg lañ fay am mais dañuy naxante rek ànd ak équipe boo xam ne nag ñoom ñëpp dañu comprendre mission bi mhm. comprendre xam objectif bi ñu ànd ak ñoom di jàppalante euh, ci kàttanu yàlla macha allah yàlla mi ngi ñuy defal tawféex daal malgré jafe-jafe yooyu nag mhm. yàlla mi ñuy defal tawféex ah, mais léeg-léeg ngeen am tamit ay cas yoo xamante ne da ngeen di jubbanti jubbanti bu mu dëgër kër waaw waaw loolu moom day am yenn saa yi bu ñu gisee non non non duñ gaaw a xaat yi dañuy waslu àq nag yaakaar waajur bu am yaakaar ñëw jox lañ euh, doomam ak ak doom ni mu neexee ci xol laal la mm-hmm. ku ko bàyyi bàyyi kook yow ngay dëkk ak moom di dund ak moom mu dëkk fa presque weer bu nekk benn yoon rek la koy gis mm-hmm. euh, année bu nekk benn yoon rek la xale bi di dem kër ay waajuram te ban te ban jour lay doon euh, samedi bi njëkk si si weer bu nekk si la waajur bi am droit ñëw ziyaar ñëw seet xale bi moom xale bi moom tabaski rek lay dem ak korite xam nga 12 mois yëpp xale bi nekk ak yow loolu kóolute rek am na si ñoo xam ne sax masuñu la xam dañu dégg daara ji rek ñoo andi seen njaboot di jóge fu sori nag. Mhm. si réew mi Sénégal ba bitim réew. Mhm, la preuve mooy Mariama mi rek. voilà si la. macha allah moom sax bëggoon naa nga may ma foofu porox ndool bu ndaw rek. Mhm. parce que aayaat yi mu doon wax nii. dafa mel ni daf daf ko tànn ndax dafa ànd ak li nga doon wax sànq. la jàppale gaa wante loolu mhm. moom la borom bi wax. Mhm. moom nag loolu aayaat yooyu moo si tombé. juste sama xaalis baa ngi nii su may paree di dem dina daaru muminaati sax dina la si yokkal. est-ce que ndax xol yi gën a bari. waaw ci li nga xamante ni moom mooy euh, si seen daara jo daara muminaat. Mhm. muminaat wuyoo na turam yaakaar naa ne ay jigéen la rek ngeen di euh, former foofu. wala dëgg la dëgg la ay jigéen rek la. xanaa ndax euh, préscolaire ba. moom moom comme ñoom externat la. ñoom foofu am na ay góor mais bu dee internat bi moom. foofu xale yu jigéen rek lañ fay jéem a former. ñoom it ay jigéen lañ. waaw yenn saa yi nag mu am góor mais bariwu ci te it gënaluñu. Mhm. waaye léeg-léeg xam nga euh, xale yu jigéen yi mokkal ña nga ca sëy ba ña nga ca kër ya. dañu mhm. jàngale kat day xaw a jafe. Mhm. ci foofu sax laay jaaree nag di ndokkeel ñi nga xam ne ñoom lañ fi wuutu àjjuma bi paase. daara yaay Aïcha. Euh, suñu mag Adja Binta Thiaw di suñu idol di suñu pionnière. wax dëgg yàlla suñu royukaay moom lu gën a bëri moom moo ñuy fournir ay jàngalekat. dañuy am jàppalante bu ñuy def bu ñu amee jafe-jafe jàngalekat rek moom da ciy taxaw temm ba ñu am jàngalekat. Mhm. macha allah yenn saa nag ñu am góor mais rek góor bi tamit su boobaa euh, euh, dafay du du am contact daal waa du toog day wàcc ñibbi. wa illa aussi dina am benn séparation bu am ak entre ñoom ak xale yi. d'accord yéen euh, li nga xam te ne moom mooy seen daara ji daara moderne la boo xam te ni maanaam yéen cours dañ fay faral di dispenser ak jàngum diine arab jeex na waaw français am na anglais. non français bi moom moo tax ma andi leen échantillon be exemple be muy Ndeye Ngoy Dieng. Mhm. parce que boo mokk dafa mokkal ba pare. loo mhm. di dem def étude primaire am. Mhm. deux ans la ko def. ci biir deux ans yi ñamu fekkoon foofu ñoo xam ne depuis. préscolaire ba léegi masuñu def. Euh, raw na leen euh, la woon. Euh, mention bi daaw. Mm-hmm. ministre bi sax moo ko joxal si loxoom. Mm-hmm. muy école Manaaru Huda IEF bu Almadi. Mm-hmm. yëpp moo fa nekkoon moo kii mention excellente démb moo jëloon maanaam prix prix d' excellence bi daal. loolu mooy xam le ne jàng alxuraan du tere. du du tere jàng yeneen jàng. jàngee ba mokkal te xam nga alquran dafa fiir mhm. moo tax boo ko booleek leneen rek léeg-léeg su mu am rëq-rëq léeg-léeg nag yàlla may la ci ndam mhm. waaye ñun li ñu préféré daal mooy xale bi jàng ba mokkal door a dem jàngi leneen waaw bu jàngee ba mokkal moom mhm. foofu deux wala trois ans du ko passé mhm. parce que classe yi daf koy daf koy duble mhm. te ñam fa fekk ñëpp moo leen di roppi ñun am na expérience boobu am nañ euh, ñu bëri ñu mokkal ñoo xamante ni ak même ñu mokkal si yeneen daara yi gis nañ ni xale yi primaire bi duñ fa taxawaal te dañuy dem rek roppi xale yooyu loolu nag ci ci ci kattanu alxuraan la ak euh, dooleem yoo xamante ni peut-être ku ko dundul sax doo ko mën boo demee ci IEF yi boo demee ci école yi. Mhm. loolu moo fay am xale yi mokkal alxuraan ba pare. Mhm. toujours dañuy jaaxal jàngalekat yi ak euh, inspecteurs yi. d'accord mais aussi euh, maman Soda parce que liñ dese ci ay euh, simili bareetul bëgg naa xam. Mhm. parce que am na ñoo xamante ni comme sama genre yi nga xamante ni xëy nañ jàngoon nañ fàtte nañ nekk nañ yaay. mais am ngeen cas yoo xamante ni seen yaay yi dañuy profité ñoom. def jox si indi leen seen doom pour ñu jàng kut ka kut. xëy na peut dañoo raté woon. Mhm. ñu bëgg ñu rattrapé ko ci seen i doom genre cas yooyu di ngeen ko am. Mhm. maanaam comme tey jii nii man jàngoon naa. waaw fa am naa lu ma fàtte. waaw donc xam naa ne bëgg naa diine bi man am naa kersa delluwaat ca daara ja mhm. mais sama doom moom damay bëgg. lépp lu ma mu bañ kaa dal mhm. donc damay profité indi sama doom mhm. pour que marak li ba perdre loolu moom ngeen def ko ci moom genre yooyu da koy am bu baree baree bari sax parce que yu bari ci parent yu bari lu mel noonu la ñuy wax mhm. li ma dal bëgguma mu dal sama doom ndax dama comme man jàngu ma rëcc na ma sama ko bëgg a dab dabaatal ci sama doom loolu moom cas yu baree baree bare dañ ko ci am yoo xamante ni noonu noonu nga ko waxee noonu lay demee waaye aussi tamit may gën a feddale rek na jàng du weesu xëy na euh, euh, jàngi mooy weesu comme ni Mariam def nii dem mhm. jàngi mais nag jàng koo xamante ni xëy na jàngoo woon sa biir kër comme genre yi <laughs> sa temps lu mu gàtt gàtt gàtt jéem ci rek xaj-xajal benn deux heures donte semaine bu ne benn nga nga nga nga dugal ko ci rek dante donte benn aaya la rek chaque semaine Fatima benn aaya comme ñi faratale uh-huh. Euh, ndékki añ reer jërëjëf ñu def kon def voilà bu ñu ko defee rek ndaxte li muy bëri bëri li muy mel ni lu jafe yëpp borom bi moo man lépp te moo ne wala xad yassarna al qur'ana li zikri nee na soo ko bëggee rek ma yombalal la ko bu du woon loolu xam nga xale yi ndaw yi ay 9 ans 8 ans duñ toog di la taril baqara ba naasi ak ni mu bëree yu niroo mhm. ak ni mu bëree yoo xamante ni dafay mel ni lu xaw a jaxasoo mhm. waaye borom bi moo ko yombal soxna la jërëjëf. Uh-huh. <laughs> jërëjëf uh, xanaa kay rek balaa ñuy ñuy tàggatoo nga wax ñu rek si waru si jàngub jigéen. waaw uh, li nga xam te ni moom mooy uh, daara. léegi gis nañ ne da ngeen jël ay jigéen daal di leen fi dajale dina jàngal ba lan mooy solo si jigéen mu jàng li nga xam te moom mooy diine. voilà Fatima question bu am solo bu ma neex a ngi noonu ndax ndaxte ku ne xam na ne jigéen mooy mooy léppi àdduna. Mm-hmm. jigéen mooy ki nga xam ne su baaxee rek àdduna bi baax. laal la ndaxte mooy yar. moom mooy former ñeneen ñi. Mhm. mooy former góor mooy former jigéen. Mhm. kon yaay jooju nag bu fekkee ni xam na fu muy teg tànkam fekkee ni jàng na alxuraan yar nañ ko yaru diine. Mhm. Euh, bu ëllëgee bu amee njaboot tamit ci tànk yooyu rek la leen di jaarale. te su ko defee bu fekkee ñun ñëpp jaar nañ ci tànk yooyu société bu baax la ñuy am bu jub société boo xamante ni dinañ xam li leen war waaye tamit dinañ xam tam lan moo leen andi si àdduna bi. parce àdduna ñëwuñu fi nii rek pour pour ñu demaat mhm. mission lañ fiy dox si mhm. mission boobu nag dañuy dem ëllëg rendre compte mhm. kon nag bu fekkee ni yar nañ xale yu jigéen yi si loolu ñu màgg xam seen valeur te jigéen dafa dafa fort waaw l'islam dafa fonk jigéen su fekkee ni xam yar nañ leen ñu xam loolu duñu yenn yu bëri yu ñuy gis nii tey jii duñ ci duggati ñu xam ñooy kan xam ñoom lan lañ fi andi xam li ñuy représenté si société bi ëllëgee bu ñu yoree njaboot ñu man leen a yar si loolu su ko defee dañuy am rek euh, réew mu ja am jàmm laal la xanaa rek ñu daal di ko bàyyi mu daal di tàggatoo. Uh-huh. ak uh, ñi nga xam te ñoom ñooy askan wi. dëgg la may tàggatoo askan bi wante uh, di kontaan lool nag ci seen yeesal yu am solo yi. Mm-hmm. macha allah. Uh-huh. man daaw ma njoganalu sax mais léegi. <laughs> bu heure bi jotee dinaa ut sama kudd ñëw toog parce que macha allah yi ngeen fiy joxe am na solo mhm. di ñaan yokkatee kër gi ak borom kër gi nag amiin saa Sidi Lamine yàlla na ko yàlla jëmee kanam yàlla na yàlla leeral euh, xam-xamam yokk xam-xamam leeral dënnam macha allah waaye nag di nuyu sama parents d'élèves yi mhm. wax naa ko sànq laa la mhm. doom dafa fort si xol nit ku bàyyi ñëpp dafa sax si xol ñëw tànn indi la doomam njabootam euh, xamul nu muy tëddee xamul nu muy lekkee parce que ki jël ki jël uh-huh. a def ci moom xam-xam muy uh-huh. ni wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee sànq rek ñoom taamu la andi seen njaboot uh-huh. ñooñu kenn mënu leen fay waaye tamit ñi ñuy jàppalanteel tamit ci liggéey ba parce que benn loxo du tàccu dama leen di wax toujours ne fi amul amul amul kii moo jiitu wala nangam ñun ñëpp dañuy dañuy jàppalante ba ci kay togg ba ci kay nettoyer ba ci ñuy jàngale ba ci liggéeykat yi ñoom ñëpp ñoo fa yam euh, droit ku bàyyi si ñoom euh, loxoom rek mu feeñ si liggéey bi kon euh, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñi ñi nekk ci daarul Muminaati di fa liggéeyee ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye di leen ñaanal yàlla jàngalekat yi kenn amul seen fay ñi si def yëfu njaayeen yi di togg ca waañ ba kenn amul seen fay ñiy setal xale yi kenn amul seen fay ñiy nettoyé macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla lépp luñ fa def yàlla na leen barke alxuraan amiin amiin euh, soxna Fatima mhm. euh, soxna Lalla dafa mel ni dañoo beral loxo jigéen ñi nag si <laughs> waaw waaw gis nga ne xaw a beral loxo parce que waaw incha allah ñu góor ñi tamit ñu ngi ñëw si ñoom. incha allah laa la man tamit euh, may kontaan di bokk ak yow. plateau bi sama réalisateur bi jigéen ñi di ñëw. waaw jigéen ñi rek di ñëw loolu amul amul jigéen ñi temps ñoom ñoo àgg. ah dëgg la dëgg la waaw may remercier sama invité. Euh, kontaan loolu ci euh, taxawaay bi aussi mm-hmm. ak fàttali yu am solo yi ñu fa fàttali. alhamdulilah kontaan nañ loolu ci taxawaay bi. may remercier ñi nga xamante tamit ñoom ñooy ñi may seetaan jamono ji si mm-hmm. àjjuma ji tey ji encore di remercier tamit kii nga xam te moo génn si sañse bi sama tailleur di euh, Bassirou Samb te sama maam aussi maa ngi koy euh, remercier bu baax di ko nuyu aussi euh, di remercier suñu waa kër ak sama grande sœur di tamit sama tante fële ca jëppal di ko nuyu bu baax a baax mhm. di remercier daal ñëpp mhm. kontaan aussi ci tey ji ak sama xale yu baax yu rafet yi ma fi <laughs> nekkal tey ji mhm. eh, di wax eh, téléspectateur yi ñu eh, xaaraat ma àjjuma bi di ñëw ak beneen daara incha allah. Mhm. ñu ñëw fàttali nit ñi tuuti seen borom ndax si la bokk ak àjjuma ji sellal ko da siy baax kon mhm. ba àjjuma ak jàmm di premier d'accord ba àjjuma ak jàmm ba àjjuma incha allah tey di premier mais jamono ji benn parent liggéeyul ñi ngi scotché wu ci teleem mi ngi si chambre à coucher wala mi ngi ci salon wala wala ñu ñuy bàyyi xel ci 93 point 6 yéen ñëpp jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfalaat bu baax a baax rek euh, daara mu'minit mu'minati minati naati ah, ah, mu'minati naati naati mu'minati <laughs> waaw moo tax inspiré leen ma damay jàng si waat insha allah rabbi <laughs> jaajëfal bu baax a baax moom suñu yaay euh, Soda Diop sama la ah. waaye tamit ñi fi jaaroon na ñoom Mariam Silla ñoom Ndey euh, Nguy Ndiaye Dieng ñoom Awa Sa ak ñoom Ndey Mariam Si dañ leen di ñaanal rek ñoom it yàlla bàyyi leen suñu kanam ba lépp lu ñu nam rek suñu borom bi def ko ci ñoom kon dañuy ànd ak waa régie ci beneen studio bi daal di daal di def euh, tënku xibaar yi te dellu si waat ci suñu plateau euh, Njogonal à tout de suite merci beaucoup